maa ngi nii ndeysaan stade bi yuuxu nañ liggéey ngi na ee eh, guy gi la baaw baab cey guy cey ndeysaan guy gee ngi déplacé wu dem na taxawaat moom guy gi taxaw na ndeysaan taxaw na ci banc bi am na butéel bu muy man teeku moom guy gi ndeysaan ma ngay sotti géew bi sa ñoom ñaar ku ne na mbot ko doon xaar bis bi ñu koy waaj ay at waaj benn fan ba tey ñu ne yegg si nañ ci bis bi ay simili yu néew lamb ju nar a jot analysateur yi nii kenn du ko yàbbi ndax as ñu ne ko déedéet guy gi mu ne bu leen fàtte maase Mbaye Diouf ñu ne ko déedéet guy guy gi mu ne bu leen fàtte maase Bosoka ñu ne ko déedéet guy gi mu ne bu leen fàtte maase Bébé Saloum ñu ne ko déedéet guy gi. Tarkinda. daan simple la daan boo xamante ni nag eh, waxu benn mag bàyyi naa la ak yàlla daa jàll kenn jàllewu ko koo koy Reug Reug Reug moo xus jàll mil mbett bi la demee Reug Reug dong moo xuus jàll mu Reug Reug moo xuus ci kaw Gris 2 ñu ne ko déedéet Reug Reug foo teg loolu ndax boo tànn bu ne bu leen fàtte maa xuus ci ginnaaw ay dox gars yi ne ko déedéet bu leen fàtte mu ne bu jaawale maa ci ginnaaw jottan mu ne ko Reug déedéet xanaa soo ko mu ne déedéet bim de Saalum ñu doon wax ni kenn mënu koo daan maa xuus jàll ci moom. nga xamante ne ndaanaan la ci làmb xale bi dañuy jóg. mbër la moo xamante ne ah tey de gàcce ngalaama guy waaye gàcce ngalaama Reug ñoom ñaar ku ci nekk mobilisé nga vraiment indi stade mbooloo mu takk topp nañ leen indi leen fii ci stade bi ku ne fas yéene wane sa borom ku ne fas yéene wane sa bopp làmb ngi nii débat déet bi li ñu jaaxal nag mooy ah, guy gi bi mu duggee ci na de. guy gi rëg rëg. ay waay loo doon bañ mu xew. wala mu yegg bul ko appal bés waay. ay bu ñu ne woon le xel mi dem ci guy gi ak rëg rëg. ay waay làmb ja ñëw na nag. guy gee ngi nii. ci diggi géew bi nii ci diggi géew bi arbitre seet guy gi arbitre bi di seet rëg-rëg ndeysaan arbitre beeg leen di seet ndeysaan arbitre baa ngi xool ñaari mbëri xool nañ rëg-rëg ba pare rëg-rëg a ngay iti ma ngay iti guy gi am na lu ñu koy jox wala déet am na lu mu seex Protez Daxa guy gi sax na Protez Daxam ndeysaan gi sax na Protez Daxa ba guy gi rëg rëg ñaari mbër yaa ngi ci diggi géew bi guy gi rëg rëg ñu ngi ci diggi géew bi ñoom ñaari xale yi. diggi géew bi actuellement. arbitre bi xool nag rëg rëg ba noppi. guy gi ba pare. arbitre bi nga waaj a sifflé Ousseynou Diop. waaw waaw. ñu ñu ngi noonu ndeysaan. ndeysaan. jaaraama GFM entertainment. jërëjëf. groupe Futur Média. ndeysaan. lalla. arbitre bi am na lu muy wax ñoom ñaari mbëri ku ci nekk daa bëgg a bot ci mikaayam guy gi daa bëgg wan ci mikaayam ginnaaw rëg-rëg bëgg mu waat ci mikaayam ginnaaw waaye arbitre bi dañu wax ak ñoom ñaar nee na leen règlement bi lii la nangu règlement bi lii la bañ code sifflet moo leen boole waaye code sifflet boobu moo leen tàqale joxale leen loxo joxante leen loxo gir guy rëg arrière na waaw guy gi arrière guy gi daa fàttee jat wala déet guy gi dina jat wala du jat ah dañ leen xool dañ leen xool arbitre bi bu laajee guy gi jat guy gi jat na ma ngay reculer guy gi ma ngay reculer Reug Reug ngi daw di ñëw guy gi def na sortie délibérée guy gi def na sortie guy gi def na sorte arrière na ma léemu Reug Reug koy xaar arrière na ee guy gi ay Reug Reug guy gi ngay jàpp Adama fàttewu ko laay xamoon naa ko ndox du bàyyi yoonam ma ngay jàpp ma ngay jàpp ma ngay jàpp ma ngay jàpp ma ngay nangu na poftan bi diw ko ci yaram bi continué jàpp moom guy gi Reug Reug doon na poftan hee nee na public bi jóg leen nee na jóg guy gi nee na hee lamb ja Reug Reug nee na guy gi daa na wax tay ma yemale ko nee na tay ma yemale ko ko cey guy gi am na lu mu seq am na lu mu seq moom guy gi waa déet waay guy gi lii mu def moom lan moo ko ci mën a fekk day ah. ndeysaan guy gi bàyyi na ba arbitre bi mu génn nekk ci ay débat débam lamb lépp tegtal la arbitre bi nee na ko pare nga guy gi nee na waaw combat bu nar gaaw ngeen gis mbokk yi ku xef doo gis jël nar naa gaaw avertissement guy gi sortie de libéré am na benn avertissement daysa arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche 20 février 2022 arène nationale journée GFM entertainment Reug Reug ngeen lool guy gi moo lay won ginnaaw Reug di écurie Thiaroye Géej guy gi écurie suñu papa Mor Fadam yàlla na ko yàlla yërëm ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaari xale yi il est 19 heures 44 minutes ndeysaan maa ngi nuyu sama xarit ba maam Abdou Borom France xam naa ni gisuma la waaye sa xel mi yëpp a ngi fii ci làmb ji borom sena pavage maa ngi lay bége bu baax ndeysaan sama xel dem na ci sant yàlla mu baax mi sama xarit bi ndeysaan yàlla sa jàmm yàgg sama xel dem na ci sëriñ Moor moom it sama xarit la yàlla na sa jàmm yàgg ndeysaan sama xel dem na ci la grand saltige caajaay Cheikh Bamba général ku baax la waaye mbëri ba tey ñoom ñaar ku ne maye na distance waaye sama xel dem na tey ci la grand cadreur le cadreur des cadreurs muy Adama lu mu cadrewul baaxul sama xarit bi ndaa ndeysaan nangoo liggéey am jom bokk ci réew mi lépp lu ngeen gis Wassare Lamb Adama la ndeysaan cadrage bu jaar yoon moom ci doy moom ak ay nawleem yi mu fa nekkal ndeysaan ma leen di sama xel dem na ci États-Unis may bégee bu baax a baax le grand artiste Babou Presse sama xel a ngi ci yow ak soxnaam Dalian <laughs> ndeysaan di bégee famille bi sama xel dem na oh lamb ji mu ngi bëgg a am toog na ci tànk yi jox guy gi ku nekk taxaw na fi mu taxaw arbitre bi àtte na Reug xool supporter yi guy gi taxaw na rek ndeysaan arbitre bi sufle waan na Reug Reug sampaat na tànk bi taxaw moom Reug Reug guy gi taxaw rek guy gi neewoon na ma bàyyi jële ma ne ko waaw mu ne ma dinaa ko may deux minutes su ñëwul aa ma ne ko bu ñëwul mu ne ma aa ma ñëw Reug Reug ñëwul lan moo a xew guy gi day dem wala loolu stratégie la wala dañ wax rek ñoom ñaar wala waxi signature contrat la ndeysaan sama xel dem ñër ci Zeus borom sama xarit bi yàlla na sa jàmm yàlla Seri Fatick ndeysaan xale yaa ngi noonu ndeysaan ñu nga taxaw Reug Reug taxaw na rek guy gi nee na Reug Reug na rek nanguwul sàqi paa ñëw ci guy gi guy gi nanguwul sàqi paa ñëw ci Reug Reug sama xel dem na ci Balla Gaye Bombardier nii la demee waaye combat bi waaw waaw arbitre bi day atte arbitre bi day atte ah ah ah ndànk ndànk ndànk nee na ko bëre leen waaye arbitre bi bu teelee joxe avertissement ndax guy gi am na avertissement bu njëkk sorti délibéré amaatee avertissement moom rëg rëg guy rëg dox na ci koom léemu na guy gee ngi arrière rëg rëg dox ci koom guy gi rëg rëg lan moo nar a xew rëg rëg doon na guy gi rëg rëg rëg ci tànk yi la jëm wala guy gi rëg rëg guy gi day xeex wala déet jàppante nañ baaraam lu nar a xew ñu ngi jaayante doole guy gi door na guy gi door na gi rëg rëg rëg rëg door na mbaa door mu daanu du am mbaa du yoo nar xeex ñoom ñaari xale rëg rëg door na rëg rëg door na rëg rëg door na guy gi jàpp na rëg rëg jàpp na rëg rëg jàpp na rëg rëg jàpp na sol na ko da koo nar a plaqué wala déet guy gee ngi génne loxo bi guy gee ngi door ci guy gee ngi door Reug Reug taxabal na ko daan na ko. Reug Reug daan na guy gi Reug guy gi guy gi na ci zone wala déet gaañu na ci zone zone bi déplacé wu na Reug Reug daan na guy gi eh, Reug Reug daan